asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum mbokki Sénégal asalaamualeykum mbokki àddina ah ñu ñëwaat ak yéen rek waxtaan comme niñ koy waxee toujours éveil de conscience la ñu ne donc je pense que am nañu part de responsabilité ci li nga xam ne war nañ koo mën a wax ci réew mi mu mën ñoo saafaraal yenn jafe-jafe yi euh, dañ ko jéem naa ko nag bu ne façon bu ne ci suba ba léegi jéemee naa ko nu ne maanaam gis nañu ne à un moment donné je pense que ñun ñëpp am nañ ci responsabilité part de responsabilité ndax li xew tey Sénégal je pense que dañu war a toog ñu xoolaat suñu bopp ndax mënoo nekk ci réew d'accord nga am njiit boo xam ne àdduna yépp xamoon nañ ne Sénégal tollu woon na ci moment wu désespoir maanaam tollu woon na ci moment boo xam ne li américain dina ñëpp give up nañu maanaam kenn amatul woon espoir donte desoon na quelques-uns yoo xam ne musuñoo ñàkk espoir et ils ont toujours tenu la tête haute et ils ont toujours tenu à continuer le combat ba yàlla may ñu ci ndam euh, ñooñu xam nañu leen ndax wax dëgg yàlla réew moom surtout réew mu mel ni Sénégal la fa xew yépp doomu aadama yi xam nañ ko mais je veux demander à mes petits frères mes petites sœurs mes mamans mes oncles lan mooy projet bi c'est quoi le projet nga toog nga dajale sa àdduna yépp nga def ko ci ay natt wala ay situation nga jël ko jox ko sa doom ne ko duggal ci gaal nga risqué traverser océan ci gaal boo xam ne ce n'est même pas équipé pour faire se genre de trajet daanaka boo xoolee diggante Europe ak Sénégal di pour cent des personnes yuy dem ñooy yegg maanaam fukki gaal yu ne peut-être nga ne benn yegg jusqu'à quand suñu ñaata doom ñoo des ci géej kañ ngeen di ne enough is enough am na foo xam ne boo fa tolloo ci àddina amatuloo excuse Sénégal ban excuse la nit mën a joxe ne loolu moo tax ngay génn réew mi tey ban excuse la nit mën a joxe xam naa ne régime précédent bi feel na waaye régime bii régime boo joxagul sax six mois ban excuse moo war a mën a tax doomu sénégalais yi di jël géej gi ba léegi doomu sénégalais yi di jéem a yegg Espagne doomu sénégalais yi di dem Europe doomu sénégalais yi di dugg ci gaal yi ban excuse la ñu war a mën a joxe te risque bi c'est énorme le risque est énorme lan moo jar lii ci àddina lii lan moo ko jar lan moo jar lii xanaa nag bu dul dara lan moo jar lii lan moo jar lii ci àddina capitaine bateau yi walla yenn nit ñi ngeen di xam ñuy def trafiku humain yi ñii yenn seen yegg Europe ñoru leen seen yegg seen tekki ñoru leen c'est des personnes qui sont égoïstes te ma gëm na sax gouvernement bi dafa war a jël ay matuwaayam les enquêteurs doivent aller dans toutes les villes du Sénégal ngeen enquête xam ñan ñoo nekk ci ginnaaw lii et il faut punir ces personnes très sévèrement lan moo jar lii lan moo jar lii jusqu'à quand léegi tey Sénégal nga konte fi dootoo fi gisati ndaw on a perdu la moitié de nos de notre jeunesse dans l'eau beneen moitié bi jaar Nicaragua ñëw bàyyeeku Amérique beneen moitié bi du mën a sax beneen kaaru kaaru kaaru kaar bi yegg Espagne te te amul benn dëkk boo leen assurance lan moo ko jar lan moo ko jar lan moo jar li ngeen di def ci géej gi à un moment donné suñu yaay yi lan moo war a tax nit di sacrifier nii doomam lan moo tax yaay muy jël paas di ko jox doom pour mu dem dee loolu yow yaay boobu xamal ne est-ce que yow xamal ne yaa rey sa doom yow xamal loolu man du man kenn xamewu ma layam layamay wax géej gi ku ko jël nga dee ci loolu fan nga ko mën a nettale géej gi ku ko jël nga dee ci sëñ bi dangaa xaru géej gi ku ko ci dugg dangaa xaru géej goo xam ne yow leer na la je comprends ngay daw dee je comprends nga nga am ay nit yu la daq ak fetal loolu sax boo demee ba mënoo jànkantoo ak ñoom nga ne ah léegi de vraiment jéem naa pexe bu ma man il faut ma seeti leneen c'est compréhensif mais lan moo war a tax nit kenn dàqu la kenn waru la kenn jéemu laa rey sa réew mi ngi naat sa réew mi ngi changé Europe nee nañu leen c'est vide léegi nit ñi dañuy dem di raxasi ndab ci yeneen réew yi wala di fa def ay liggéey yu ñàkk fayda yoo xam ne mënatoo cee génn lan moo jar lii demandez-vous question lan moo jar lii ci àddina lan moo jar lii ba kañ les trafiquants font partie de l'autre côté ah c'est les mêmes personnes les mêmes bandits les mêmes ñoom ñoo fi nekk di trafiquer doomu aadama yi ngeen leen di jox seen bakkan pour ñu jël ko lan moo jar lii regarde combien de jeunes on a perdu aujourd'hui nee naa la j'ai perdu les ci suba ba léegi maa ngi liir maa ngi liir ba ñu may won ay nag yuy dem ci ay tefes naan wala nag baa ngi dem ci tefes bi di jooy xëy na nag bi doon xam na ne yéen doo leen dégg kàllaamay nit mu leen di lakk kallaamay nag peut-être nag bi dafa dem ba comprendre yéen est-ce que ay nit ngeen nag bi dafa dem ba comprendre tul maa ngi vraiment ñu ngi jaale suñu yaay yi suñu pap yi ñàkk seen doom yi mais nag quand xalaataat leen ci lii ngeen teg seen tànk nii du fu baax fi manoo nekk ci ab réew muy seen réew réew moo xam ne amul luñ fi dajul pour réew mi mën mën a jekk réew moo xam ne amul luñ fi dajul pour yàqkat yi ñu jële leen fi ñu mën a doxal suñu réew ngeen ñëw di sacrifier seen bopp ci réew moomu bu ko sacrifice bi jaroon ñu ne waaw lan moo jar lii lan moo jar lii lan moo jar lii gouvernement bi dafa war a jël ay matuwaayam bépp capitaine bu ñu jàpp wala bépp trafiquant du d'être humain bu ñu jàpp ci lu mel nii dañ ko war a teg à vie parce que il a il sacrifie des vies bépp nit bu ñu jàpp muy jéem a trafiqué doomu aadama dañ ko war a teg à vie ngiru bakkanam ba pare yóbbu ko ay prison yu mu mën a souffrir parce que lii lii du lii lii lii fuñ suñu ndaw ñi yëpp jeex nañu tey boo xoolee say billahi boo xoolee ñiy dee ci géej gi sa yaram dafay daw toute une famille j'ai regardé une photo qu'on m'a montré ñu ne ma douze benn famille loolu tamit loolu tamit gars yi d'accord boo waxee yenn saa yi ñu ne da nga sadik wala ni ngay waxee wala respecté wuloo être humain mais est-ce que être humain tamit dina sacrifier boppam de telle manière on te na ne mais même pas tous tes œufs dans un seul panier benn famille naka la ñuy jëlee fukki nit ak ñaar ci benn famille ngeen dugg ci benn gaal ngeen ne yéen da ngeen wutali Espagne loolu nu mu yénoo maanaa mais trop c'est trop ëpp na ndeysaan cette perte humaine ça nous lii lii xew senegal tey ah sëñ bi lii lii ñaaw na ñaaw na doy na waar ñaaw na doy na lii xew senegal vraiment ñaaw na doy na waar c'est trop lii xew senegal lii mënuñu ko nettali lii dafa jàggi dayoo maa ngi jéggalu nag ndax xam naa ne wax dafa jafe waaye vraiment il est temps il temps ñu xoolaat suñu ay taxawaay ndax lii xew ci réew mii ah jar nañu waxtaane ko de jar na autorités yi jël seeni ay responsabilité parce que lii mi ngi bëgg a jaggi dayoo lii mënta am Amérique Amérique mënoo jékki-jékki rek ñu ne ay gaalay dem fii wala ay nit dem fii di too soobu fii di soobu fale non lii autorités yi mën nañ ci jël seen ay responsabilité il faut pointer il faut ñuy jël ay alkaati léegi il faut ñuy am ay garde maritime yoo xam ne dañuy nekk ci géej gi di ko surveiller ak xale yi benn famille benn famille douze personnes mais arrêtez benn famille xanaa famille bi yëpp a gàddaay te kenn yëgul ne dem nañ au moins même les voisins boo leen yëgee ne doomu diw mi ngi dem alerter leen autorités yi il faut ñuy alerter wante parce que nag am na benn autorité ndeysaan bu ma wax lii ci kilifa yi nga xam ne ñoo ñu jiita tey mu ne sénégalais pour nga dimbali ko sax il faut nga xeex ak moom. billaay wallaay tallaay ci njiit yi ñu jiite nii tey du ma bëgg a tudd ay tur parce que aussi waxu kilifa mais man sama làmmiñam ak sama nopp mu ne sénégalais pour nga dimbali ko sax il faut nga xeex ak moom donc je pense que xeex leen ak ñun ngeen dimbali ñu suñu doom yi bàyyi dee. trop c'est trop ah trop c'est trop ñaata nit ñooy dee balaa ngeen di yàq balaa ñuy jël suñu ay responsabilité nañu wax yeneen réew yi ñu jël suñu ay responsabilité problème mu visa bi ñu réglé ko problème mu tukki bi ñu yomb ñu réglé ko parce que war naa mën a yombal ñëpp war naa yomb ci ñëpp mais waratuñoo nangu ñuy jël ay doomu sénégalais di leen dugal ci ay pirogue di leen sacrifier de cette manière trop c'est trop dafa war a doy trop c'est ñaata sénégalais ñooy dee balaa muy doy vraiment di dégg ay parents dégg naa koo xam ne nee nañu parent bi dafa teggi natt fayal ñetti doomam je m'excuse ah peut-être que am a little bit harsh mais les autorités dañu war a dem jàppi parent boobu parce que kooku complice la ci li rey njabootam bépp parent mais autorités yi il faut être vraiment strict dans ce cas-là bu jël ay paas di ko fayal njabootam ñu des ci géej gi parent boobu dañ ko war a jàpp parce que immigration clandestine la financé dafa financé ay doomu aadama yu dem dee mais nañu waxante dëgg nag léegi jeunesse su Sénégal bii nga xam ne moom la Sénégal soxla pour développer réew mi jeunesse bi yëpp nee nañu ñoom dañuy génn réew mi ci di walla naa au moins au moins may leen seen bopp chance bu normal dem leen wuti visa bu dee loolu la leen jaral allez chercher un visa prenez vos passeports entrez dans les avions comme tout le monde le font légalement mais pirogue yi ngeen bëgg a jël pirogue yi mënuñu leen yeggal fi ngeen jëm ça c'est des pirogues de pêche yoo xam ne da nga war a nappi jën fii nappi jën fële indi loolu yéen moom ngeen bëgg a jël def ko tukkikaayu Europe mais xaru la xaru la c'est suicidaire lii ngeen di def ni xaru la c'est suicidaire et suicidal ay na noonu kenn mënu koo comprendre xooli neexu xool yi neexul parce que bépp bakkanu doomu sénégalais benn bépp bakkanu sénégalais bu ñu ñàkk suñu frère la ñu ñàkk bépp bakkanu sénégalais bu jigéen suñu sœur la ñu ñàkk amuñu ci xaj ak seen mais je pense que trop c'est trop vraiment am na foo xam ne boo fa yeggee nga war a mën a taxaw xoolaat sa bopp parce que lii ñu nekkee ci réew mi tey li yóbbu jëmalewul réew kanam Jusqu'à quand Jusqu'à quand ba kañ ba kañ jusqu'à quand kañ la toog ñu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu taxawaay ne ah lii da jëmalewul réew kanam kañ Jusqu'à quand Till when war ñoo toog xoolaat suñu bopp ça c'est trop li dee ci doomu sénégalais ci at bi kenn xamul nu mu toll mais jusqu'à quand barki Dembo Ndiaye am na amal nañ fi ay élection gis ngeen ne vraiment réew mi mi ngi ci yoonu soppeku ak lu nit bañ bañ bañ bañ dëgg gis nga ne réew mi mi ngi ci yoonu soppeeku da ngay defee ne boo demee Espagne looy def dangay dem bay Espagne lu fa ëpp nit ñi dañuy bay bay bay Mbuur la ëppee Espagne bay Sénégal la ëppee Espagne léegi ñun du ñu toog ñu industrialiser suñu dëkk boobu ñu toog liggéey lan la ñuy dem fan la ñu jëm ñun ñi nekk bitim réew ñu ngi bëgg a ñëw ñun ñi nekk bitim réew yëpp dañoo bëgg ñëwaat ci suñu dëkk liggéey suñu réew ndax ñun suñu réew lañu bëgg non mais attends tukki du réussite nit tukki na ba sonn man mën naa leen limal une une centaine de personnes yoo xam ne dañoo tukki bàyyi tukki bi delluwaat Sénégal fa lañu tekkee tukki tekkiwul tekki tukki du tekki ñàkk tukki du bañ a tekki vraiment il est temps ngeen xoolaat seen ay taxawaay il est temps ngeen xool seen doxalin ni ñuy doxalee li yóbbuwul réew kanam suñu jëf yii avancé loowuñu de bu ñu delloowul ginnaaw yóbbuwuñu kanam et je pense qu'il est temps ñu xoolaat suñu ay taxawaay trop c'est trop ñaata doomu sénégalais ñoo war a dee balaa ñun ñuy xalaataat nekk ah li ñu nekk ni du yoon bu baax bi ñaata sénégalais ñoo war a dee pour ñu xam loolu mais trop c'est trop ah trop c'est trop il faut lépp lu ñu man suñu autorités yi jël seeni ay responsabilité automatiquement man li ma jaaxal ba léegi te loolu nag daf may jaaxal te dama koy wax di ko dellu di waxaat te duma ko sonn wax pourquoi jusqu'à présent jëluñu yenn matuwaay yi ci situation yi xam naa ne peut-être ñu ngi koy jël waaye tey bu ñu waree dem ci ab euh, ab dëkk pour ay situ ay cérémonie religieuse ak ñoomin seen nous mobilisons toute la police la gendarmerie les militaires mais ñaata militaire sénégalais la ñu yor yu nekk ci camp yi jotul pour ngeen jël militaires yi yëpp ngeen engagé leen partout dans les mers là pour arrêter ces conneries là bateau yoo leen gis yoo leen inspecté ne bateau yi nekkatul ci am mode du napp jën wala yooyu ngeen jële leen ci taf ci booru géej bato bu mag boo leen gis mu nekk ci ay ay ay mbir yu suspect ngeen def ay investigation gouverner c'est prévenir il faut balaa dara ñu préparer lépp ñu préparé balaa njaaxum yi di ñëw parce que benn bakkanu doomu adama c'est une catastrophe waxatu balak ay centaine de personnes yooyu dee comme ay mboot bu doon ci réewu tubaab yi ni kon géej gi yëpp tëj nañ ko ba pare def ko ay mémoire nit mais ay centaine de personnes ñooy dee si suñu dëkk yi ñun mu mel ni téeméeri xar ñoo dee rek ñu continuer li ñu doon def bu subaa ginnaaw suba ñu fàtte ko après beneen cent personnes jëlaat gaal ñu ne cent personnes man bu ma déggee cent personne damay ne réellement ñii ay personnes la ñuy wax wala cent mango la ñuy wax yu yu wodd fen il faut nag aussi defe suñu autorités yi te loolu bu leen ci am sentiment il faut ngeen commencer signe ak dëkku Europe yi yéen ngeen jël seeni ay mesures mais européens yi certes euh, euh, euh, également ngeen jox leen ay mesures yu ne leen képp ku ñu jàpp ci bateau yu mel nii nañ la delloo automatiquement nañ la jël ci bateau bi dugal na ci avion rapatrié la te ñi nekk aussi ci biir Sénégal te ngeen gis leen ñuy jéem a def yu mel nii ngeen jàpp leen tëj leen ci biir kaso bi parce que xaru la doomu aadama à un moment donné sauver ko contre boppam lu tax ñun ci suñu dëkk yi ñuy sauver nit contre boppam you can save somebody against themselves parce que ñii dañu mel ni sel ñoom ñooy seen ennemi bopp parce que noon gënul garaaw yow ci sa bopp ngay dugg ci dara loo xam ne da nga xam nga ne sa dee xëj na ci te dara toppeewul ak beneen côté bi nag yéen tamit Sénégal comme ni ma leen waxee kenn dàqeetu leen kan moo leen di dàq wala kan moo leen di jéem a rey wala ci ban situation ngeen nekk bu fi compliqué compliqué boobu je comprends bu dee situation yu mel noonu ñoo présenté I can understand it but what situation is really present in Senegal today that's gonna give you a reason to kill yourself mais trop c'est trop lii dafa ëpp am na yoo xam ne jaru ko daray àdduna jarul li lan moo jar lii lii lu ko fi jar lan moo fi jar lii daray àddina jaru ko fi rien rien au monde amul dara ci àdduna bi loo am ne jar na lii vraiment je suis man de vraiment tey am naa lu ma naqari trop sama kàddu yi nag xaw ma jub nañu xaw ma jubuñu xaw ma xaw ma baaxuñu xaw ma ñu waaye je peux vous dire que je suis bi ma toogee tey ñu wax ma nombre de personne bi dee wala nombre de personnes bi réer ci biir géej gi wala nombre de personnes bi ñuy wër ba léegi ah ma ne nag lii jot na suñu autorités yi nag ñu jël seen ay responsabilités j'ai vraiment malo au loolu vraiment sama xol a ngi metti de bu ma leen ko waxee sama xol metti na bu ma leen ko waxul aussi sama sama xol metti na man mënumaa comprendre naka la doomu aadama di gisee démb nit dee na ci géej gi démb ñu ne la téeméeri nit a dee ci géej gi ñu ne la ay mool ñu ne la ay ay nappkatu jën yu professionel ñu ne la ay feykat yu professionel des nañ ci géej gi yow suba nga dem jëli waat encore sa pirogue nga ne yow dangay jéem a jéggi géej googu mais da nga xaru ah mais loolu xaru la mënumaa comprendre yow wax nañ la ko ñu ne la démb téeméeri nit ñoo dee ci géej gi yow tey nga jël bato ci même géej googu nga bëgg koo jéggi mais ça c'est la catastrophe trop c'est je comprends waaw am ngeen lu leen naqari waaw kër yi metti na waaw mettit bi bari na jafe-jafe bari na waaye nag yaay booy yi ak baay boo yi ak suñu nijaay yi ak suñu frères ak sœurs yi arrêté leen di jël xaalis di ko paasal ay doom di leen dugal ci ay gaal ku ko def wallahi assassin nga te suñu gouvernement bi autorité yi la police la gendarmerie les enquêteurs foo leen gisee nit def lu mel noonu da ngeen ko war a tëj da ngeen ko war a jàppi parce que kooku dafa jël dafa atta dafa attenté à la vie de quelqu'un lan mooy différence kooku ak ak ki jël fetal tiire ci kaw nit te deewul damay laaj rek damay laaj man lan mooy différence su nit jël balu fetal dóor ko nit deewul ak mu dugal ko ci biir géej deewul wala mu dee lan mooy différence bi c'est la même chose parce que dugg géej gii ñuy dugal doomu aadama yi nii xarula la it's suicidal it's suicide géej gi ñuy dugal nit ñi ñuy jéem a jéggi géej gi is suicide amul beneen moo yaa yaa amul beneen moo boo ko mën a tuddee is suicide suicide la is suicide naka la nit di mën a toogee këram nga xool sa doom yow ki nga bëgg ki nga xam ne sa àdduna yépp fexe nga yar ko taatagal ko ba mu màgg nga ne déedéet dama koy dugal ci géej jël sama chance mi ngi mel ni ma joué ko PMI ma jël sama doom joué ko loterie bu dundee baax na bu deyee baax na loolu ngeen def c'est ce que vous avez fait parent bu ko def de loolu nga def loolu mooy dëgg képp ku la ne duggal ci biir géej nga dem di nga yegg fa nga jëm ma fayal la nangam wallaahi daf la bëgg a yaay ju la ko wax bëggu la baay bu la ko wax respecté wu la loolu mooy dëgg loolu yaay ju la ko wax joxu la cër baay bu la ko wax joxu la cër te loolu rek mooy dëgg bu la kenn nax nag yaay ju la dugguloo ci biir géej baay bu la dugguloo ci biir géej wallaahi bëggu la ne ko mu dugg xaru la xaru la xaru la amul benn raison boo xam ne tey doomu Sénégal man pour man je me dis tey bokk na réew yoo bokk na ci réew yoo xam ne muy Sénégal bokk na ci réew yoo xam ne tey ñu ngi koy ndamoo ci jàmm ju fa am ndax sonn nañu d'accord on a vécu douze ans de feu ñun ñëpp xam nañu lool traumatisme boobu tamit mën na laa topp peut-être un mois ginnaaw élection mais ñu ngi presque quatre cinq mois ginnaaw élection lu nit di dawati bay daanu mais attends kenn terewul kenn tukki da ngay bëgg a tukki tukki légalement bu la ko jarale mais jarul ngay xaru jarul ngay xaru jaru ko ku la ne war ngaa mën a jël gaal tey dugg dugg ci géej gi di def yi ngeen di def nii waxu la dëgg c'est pas normal du dëgg du yoon déedéet dara jaru ko amul dara loo xam ne mën nañ la ko wax lu jar nga jël géej gii di ci dee dara àddina jaru ko du xaalis du luñ la promettre du dara lu ko jar ci àdduna bi buñ la diggoon sax ne la boo jéggee géej gi ad àjjana ngay dem dugg ci beneen côté la boo ci duggee xaru la surtout encore mais la police la gendarmerie jël leen seeni ay responsabilité ngeen aar xale yi contre seen bopp parce que xale yi ku leen topp ñoom ñëpp dinañ jeex ci géej gi maa ngi jéggalu nag bu fekkee li ma fi wax ëpp na waa asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu